teral lu ma ñu ma ne woon tey jii nii lañ ko bëggee lu ñu ma wax rek danaa ko loolu du laaj sax ñu ma àndal ndax dama koo teg rek ci ne bëggug sëriñ bi kenn amul njëriñ te xam naa ne mën na maa waat ci sëñ yi ñi ñëpp sëñ Tuubaa la ci ñoom loolu moom wóor na kon li des moom gàllankoor moom bu amee man jàpp naa ne du mu ne suma kon naa ko xool ci ma kenn jërëjëf ma ne yàlla fay ndam lañ lay indil nag ndax yow li nga war a def lépp def ko ndam rek lañ lay indil lii nga ñu wax nii dinañu dem dinañ ndam Duydum başka. أكبر ترقية دار خلوص أكبر ترقية وسنقاتل في المسلمين وتوفيق المسلمين الله الرحمن الرحيم